nek ci li nga xam ne modi di yi nga xam itam ay dossier aji saax mambay ñoo ba si yeneen ak yeneen eh, ki nga xam ne moo mi ngi promettre li nga xam ne justice allant dans sens des na ko di eh, si nu mu gëna yato exactement si ay ponk itam li si dina la gën a fës na lu jëm ci nga xam ne moo parquet bi eh, di procureur mi ngi fouillé exactement la caisse sociale dina si daal dikk si nu mu gëna yato yaatoo nga par ak walu wunu mel gan Gueye Dany aussi def na li nga xam ne sortie de kan si nu mu gëna yato dal di révélé do ba de Bassirou Diomaye Diakhar Faye alors de si daal dikk si nu mu gën a yaatoo ni daal ñëw itam si li nga xam nekk moo di Euh, auditi ak li nga xamni ni itam Bassirou diomay doon di amal moom itam japp nañ lu yàgg du tara ni ci daal di yegg si ndaxte jëleewul réew mi ko payantal lu si nekk day daal di jël li nga xam nekk modi waxtom a à ce que mu daal di koy war a matalé autant de points qui feront l'objet de notre discussion ginaaw Bassirou diomay jaar fay keneen itam di ki nga xam modi modi le PM di Ousmane Sonko euh, bani kon ki nga xam modi le président que sakku na si mom pour mu di exactement euh, Grand Théâtre bi nga xamni sa DPG madame sa déclaration de politique euh, générale ma kon euh, ji ki nga xam que peut-être ñi trouver selon le président ay

ak euh, ces dossiers yi nga xam ni itam moo amete woon exactement le Sénégal euh, durant li nga xam nekk mu ni deux mille vingt et un jàpp euh, dossiers yi nga xam ni itam bu Mame Mbaye Niang ak Adji Sarr bokkoon li si gën a à fond alors tey le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalal xelu askan wi que ni justice dina def liggéeyam donc le président promet de faire justement la justice par rapport ak dégâts yi nga xam ne itam xewoon na fi surtout aussi ces quatre-vingts morts yi nga xam ni itam ñu ngi koy wax mo gën a ay dossier aji Sarr suite bouti ci ak ki nga xam ne que Ousmane Sonko. alors lolu foog ñu xam ko parce que yàgg naa ko fi wax comme interrogation voilà les questions yo xamantene Le euh, président de la république son excellence Basir Diomaye jahar fay la répondu ci keroog ci samedi bi. Euh, il faut que sénégalais nous ñu retenir euh, ce qu'il a dit Ça dit que c'est très important euh, que ça soit l'opposition que ça soit au pouvoir que ça soit un sénégalais lambda il faut retenir ce qu'il a dit Il nga répondre politiquement il y a des dossiers que les sénégalais attendent plus hmm. pour nous répondre il a répondu je crois que ci euh, version wolof sénégalais pour nous comprendre euh, luy xaar les dossiers yi xaar président de la république dossier yi xaar la justice sénégalaise parce que wax naa ko justice bi nakul man maa koy ne defal lii mu def ko parce que moom dafa japonique ni justice Sénégal war naa wat war mat mat bu ne boo xamante ne le nakul président moo koy instruire wala ñu nekk ci au pouvoir bi ñoo koy ne defal nii mu def Okay. Parce qu'on a des à aguerris dans ce pays. Hmm. On a une justice à réformer et à moderniser. Donc, le lieu président de la République, donc nous avons la faisabilité parce que donc des gaz qui sont famille familles de Yagadara. Donc, on va voir euh, euh, cette justice-là se comporter autrement. Lolo, faut Donc, tellement ce dam ko gum. Hmm. Mais ce ni que il y aura euh, un chamboulement au niveau de la magistrature parce que on a euh, aussi reçu des informations ni que bientôt la magistrature va chambouler chaque jour ma wax la ko fii ci plateau la cette magistrature là va chambouler d'un moment à l'autre donc ce Yiharte, pour président de la république euh, mu mais je crois que tant que je crois que manmi des journalistes, journaliste ak des di journaliste ak sénégalais lambda donte euh, daanoon nañu am ay sikki saxa ci ay yeneen question je crois que euh, lépp bon dama ne leer na ci bopp nit ñi mais il a répondu euh, peut-être bu nekkee 100% il a il a répondu les 95% des des des questions yoo xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy posé wu. te loolu man gëm naa ko ni que dans les dans les dans les jours à venir dinañu gën a am ci lu ñu gën a leer ci ci donc su la comprendre dëgg pour ñu mën a mën jox suite. à mm-hmm. euh, ces événements il faut ñu changer exactement ñi nga xam ni itam ñooy présider si conseil supérieur de la magistrature tout en aussi doon na ko wax. Euh, y compris le procureur et consort. Oui, man, y'a gana quoi. Kenen a kenen a quoi. Je crois même le président de la Bible a dit a Wahana ko Kerok. Mm. Man, y'a gana gum Pour nous, la justice on peut pas continuer d'avoir ces mêmes magistrats ci Macky Sall <laughs> ñu leen di pour ñu def liggéey bu bu bu mais duñ ko def parce que duñu ko def ñoom ñoo fi nekkoon ci Macky Sall ces magistrats là di def naka su dul na donte attends attends attends attends attends donte ci magistrature boobu tire na amna yu baax là on n'en disconvient pas il peut pas dire que on peut pas dire que tu ci au Sénégal le moo le lépp moo même ci jamono euh, Macky Sall amoon nañu ay maysara yu doon bañ amono ñu ay maysara yu doon bañ on peut les citer ay Sabassi Fay xaw hmm. Ousmane Racine xaw ma lan voilà donc amono ay maysara yu doon bañ même ba ci Cour suprême il y a une dame qui a refusé de signer le PV le quatrième juge le cinquième juge hmm, hmm. <laughs> mais on a une justice qui était à deux vitesses la justice sénégalaise d'aucuns des magistrats ñu doon xalamal makissa diko donc jappalé ci sa commande politique de l'autre côté on a ay magistrats yi donnent bañ quand même ba ci conseil commande conseil constitutionnel keroog ba ñu taxawé di voter la loi là pour le report des élections modifiant le calendrier républicain hmm. mais le conseil constitutionnel <laughs> dafa am dogal bu am solo bu mu jël la ñu am élection présidentielle tout ça c'est des magistrats donc moi, je là pour que nous nous satisfaire donc qui euh, euh, euh, attente sénégalais envers la justice il faut que nous modernisions cette justice là il faut que nous réformions cette justice là il faut que nous organisions encore un conseil supérieur de la magistrature je crois que le président de la République on a dit on va vers des jours à maintenir, ça va chambouler pour que les dossiers yi wax sur la table du procureur le dossier est ñu ngi la table du président de la République wala la table du premier ministre comme l'a dit Bogat. <laughs> mais tout ça il faut que ñu am magistrature bu nous ñu organiser un conseil supérieur de la magistrature boo xamante ne dinañu mën am ay magistrat ay magistrat non seulement dinañu mën a def seen normal et aussi état du Sénégal dina jappalé jàppale len leen ci ay njumtukaay yu bess hmm. yo xamante dinañ ko mëna utiliser di liggéey buñu ñu bëggee def ay enquête ñu jox leen ay jumtukaay yu bees yi ñu mën a tax ñu def enquête normalement donc bu buñu mënee def audit bu ñu mënee topp nit wala bu ñu mënee def mandat tout ça il faut que ñu réformer réformer cette justice là donc les conséquences euh, non, les non, conséquences non, euh, les conséquences euh, de ces de ces de ces dossiers Mame Mbaye Niang Sarr et tant d'autres et tant d'autres euh, suite bi du mën a nekk lu dul ñu changer ñu fi nekkoon mais il faut que ñu changer cette magistrature là man loolu dama ko gëm te je crois que président de la République son excellent Bassi Diomaye Faye donne na ko tamit parce que il a dit. il a dit a un mois ñu koy proposer ay liste mais euh, day jël temps. day jël temps non non non non de manière non non non non il faut que vienne xam il faut qu'on vienne xam on va proposer des listes de Maïsra. mais c'est pas comme ça qu'on qu'on organise le conseil supérieur de la Maïsra. parce que fil il faut gérer la carrière des Maïsra. ça aussi il faut qu'on xam ko il faut gérer la carrière des magistrats Si bo dis gis nga ab justice Moi, maanaam ñu un président de la République boo xamante ne moom la pour mu garantir normalement gérer normalement la carrière des magistrats te comme nous mu ko comme l'a fait Macky Sall Macky Sall defu comme nous mu ko waree woon moo tax ñu gis justice au niveau de la justice sénégalaise parce que moi, Macky Sall c'est le ministre de la justice qui donne affecté les magistrats là les juges mais gérer carrière le président de la mais gis nañ ci jamono Macky euh, affaire bo xamantene, ñom sen seen maïsera la ñuy gérer en fait mm-hmm. les maïsera de Benno Bokk Yakar. Ñom lañ doon gérer ñu un un donc si vous voulez aujourd'hui dire ci que le président de la République quitte le conseil supérieur de la magistrature day métti bi il faut je profite de l'occasion tout pour Djemaray Touti Bougan. Comme il a dit, le président là, il veut rester là-bas. Il faut que Mohamni, il faut que Mohamni, on ne quitte pas comme ça le conseil supérieur de la magistrature. Il faut que Bougan Hamni, Sénégal, le bindo depuis 1960. Ni que toujours c'est le président de la qui préside le conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, si ce président-là, si ce président-là, Basir Diomaye Faye, ci coobare boppam parce que aussi du constitution moo ko imposé mu quitté le conseil supérieur de la magistrature ci coobare boppam moom moo gis ni que pour jox cette indépendance à la justice il faut que moom peut-être mu wàññi tànkam ci conseil supérieur de la magistrature maintenant loolu idée bu baax la mais ça ne veut pas dire que dañ koy defee di tikkoo takk mooy maanaam jomaay day ñoo toog rek mu ne leen le conseil supérieur léegi xam leen li ngeen di def débrouillez-vous c'est pas comme ça qu'on gère un pays hmm c'est vrai que tu peux être dans l'opposition bon excusez-moi mais état juste dañ lay jox ay dossier la waxal mm. comme le cas de oui mm. comme le cas de Bougane wax le même suñu man Arfan ay nit ñuy ci suuf dossier waxal ci waxal man organiser sama point de presse normalement sans entrave parce que nous dafa yoo xamoo réalité état da ngay toog ci la tous ñu lay jox ay dossier ñu la waxal ci lii contrecarré euh, ko ci lii contrecarré moo tax loolu il faut que nous xam ni c'est pas comme ça qu'on quitte le conseil supérieur de la magistrature gis nga boo bëggee justice bu ñoŋ hmm. parce que ce pays là traîne de beaucoup de dossiers il y a beaucoup de dossiers énormément de dossiers qui attendent sur la touche te justice la ñuy xaar boo jëlee le rapport de la cour des comptes les rapports là les rapports de OFNAC de SEMTIX des inspections d'État vous tous ces rapports là RMP, tout ça ces rapports là. mais beaucoup de rapports ay rapports ah c'est pas du jour au lendemain qu'on règle ces rapports là ça va prendre du temps. De hmm. boobu prendre du temps boobu l'année il faut que nga am ay magistrats yoo xamante ay magistrats aguerris yoo xamante ne ils vont rendre la justice au nom du peuple et non au nom du président Diomaye Diomaye l'a dit on ne veut pas une justice boo xamante day day am kumba ndey kumba bu am ndey kumbabo bu amul ndey c'est-à-dire veut pas de cette justice là ñun lu ñu de dafa bëri de dafa métiers. ci jamono Macky Sall moo Moi, il faut que ñu may temps pour nous réformer et réorganiser cette justice là commenté exactement euh, toujours sur la sortie de Bassirou Alors, euh,